jox ma Ndeye Khady Ndiaye lan moo xewoon Sweet Beauté bi affaire yi doog a bees tàq nekk góom bu bees. ba man moom sama élève la sama kër lay liggéey bu mu fa nekkee nag man Adji mosuma ko booleel na ko yow yaay maasee Sonko tout le temps amul dafa ñëw rek tombe si mu war a dugg cabine tombe si Sonko bu mu ko maasee yoonam bu njëkk boobu nag ba léegi amul jàmm. màcc na ko si sama kanam avant may accoucher 31 décembre la accoucher maa ngi accoucher benn hôpital bi ñuy wax Gaspard Camara. bi ma accoucher sama doom bi juddu nekk prématuré foofu amuñu verre ñu indil ma ko hôpital Fann pour ñu dugal ko ci pour xale bi mën a nooy bu baax parce que dafa am problème mu nooy mag ba léegi may wax ak yow ni maa ngi fi hôpital Fann Adji Sarr ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laa fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daan ñëw sa kër gi nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg-léeg Adji Sarr bu mu maasee Ousmane Sonko léegi booba sama jëkkër moo nekk ci kër gi ak sama doom jigéen ak sama jànk ak beneen fii mu ko bi léegi Adji Sarr amul jàmm sama jëkkër ñëw na benn jour fekk ma si hôpital bi dama indil añ ne ma waa Ndeye Khady ma ne ko naam mu ne ma man de jombi naa ma ne ko ah mu ne man aji daf may laaj Sonko rek chaque jour mu ne ma Sonko moom kañ lay ñëw kañ lay ñëw ma ne ko ah waaw ma ne ko loolu moom kéemaane na mais sama xel mu sa xalaat lii sa àdduna parce que pour man amul fi tam léegi mu nekk ci lool nekk ci lool ba benn jour am sama benn client naar bu ma envoyé message par WhatsApp ne ma ceci devant la porte fekk boobu jour boobu médecin bi mu ngi faj sama doom bi mënu ma wax téléphone ma jël message ba ma capturé ko ma envoyé ko aji ma ko envoyé message bi nag waxuma ko ne ko diw la waxuma ko ne ko laala dama ko envoyé message bi rek pour mu génn dem ubbil client bi mu dugg yéex a gis message bi moom it client bi tamit taxaw ci otom kenn ubbili ko mu dem muy naar bi aji gis message bi bu gisee message bi foo ne Sonko moom moom message bi bu mu gisee message bi mu foo ne Sonko moom message bi fekk booba naar ba dem na mu woo ma jëpp ma aji am ku woo ne ko Ousmane Sonko dina ñëw tey ci kër gi parce que patron bi envoyé na ma message ne ma Ousmane Sonko dina fi ñëw parce que moom su waxee ne loolu rek day ñëw kooko ñëw ci buntu kër gi ay 19 parce que naar bu may envoyé message mi ngi nekk ay 19 heures yooyu nga tombé aji nag am na ku mu woo ne ko Ousmane Sonko di ñëw tey ci kër gi man nga ñëw kooku noonu ñëw ba ci buntu kër gi mu toog bu mu toogee sama jëkkër ñëw indil ma reer ma reer ba pare mu dem ñibbi diggante vingt heures ak dix fekk waa toog ci buntu kër gi mu ne ko sëñ bi fii de place su liggéeykaay la te heure bi sax heure ko fa la parce que looy def fii mun ko maa ngi jéggalu déplacé wu dem taxaw ci buntu guduret bi bu mu taxawee foofu sama jëkkër duggaat ci biir kër gi. Dakar jëndalaat sama doom bi meew fekkaat si porte mu toog mu dellu ko dàqaat muy deux fois sama jëkkër jënd meew ba pare duggaat ci biir kër gi. jàll boutique woo ko téléphone na ko ku ma doon ma doon séen nga koy dàq ñëwaat na taxawaat ci buntu kër. mu jëkkër na ko yow kanaa tëjoo vingt et une heures nga ngay gis ay mënu ko maa ngi nii si kaw piraab dama doon bàcc samay kilot sama jëkkër génnaat bu mu génnaatee fekkaat waa ji tombé ci gardien gurret bi di ko dàq parce que gardien gurret bi dafa nekk sama xarit jëkkër man mii sax daf ma respecté hmm. ne ko fii place liggéeyukaay la. loo fiy def ak loo bëgg mu ne ko man résidence membre bii laa nekk dafa am ku ma yoon mu dem sama jëkkër woo ma téléphone expliquer mu ko ma kon de am na lu bëgg a xew mais lan la kii est ce que yónnuñu ko mu def dara si cabine bi mu ne ma en tout cas daal lii xew ma ne ko guddik tey nag bul nelaw defal tout ba ku porte bi nga jóg mu ne ma waaw aji bi nga si kër gi. di wër wëri léeg mu ne tonton Ibrahima man ko su la rek pour wooyu pour nga xam mais booba ñun xamaguñ li aji li di di programme suñ ko xamoon li yëpp du am léeg-léeg mu ñëw def biir wi pour bëgg xam ndax Ibrahima nelaw na wala nelawul ba mujj gi mu dem tijji port bi bu mu tijjee porte bi ànd ak waa juróon Ibrahima doon dàq mu dugg ci biir kër gi bu mu duggee ci biir kër gi visite kër gi ba kër gi daj. Ibrahima a ngi koy xool de mais waxu ko dara Ibrahima dama kii faaliwu ma mais ragal na nday xaj xaaral ma woo nday xaj su ma ko woowee nday xaj dina ko wax dëgg parce que mën naa ko woo mu fen ma ti ma woo ko ma ne ko aji mun ma naam xooluma sax caméra dama ko peser rek jàpp ko ma ko sànq sama téléphone dama xool ci caméra bi gis nga ànd ak ku góor dugal ko ci biir kër gi muy visite mu ne ma sama xarit la nee na suba daa war a ñëw ci kër gi mais nee day visite kër gi ba pare mën na ko une heure du matin xarit ñëw ci kër gi heure bi aji munu man naa mën na ko aji looy programme munu ma temps final pourtant du dara de mën na ko ah ma waa mën na ko lu waaye reen sa loxo lay ma coupé sama téléphone loolu li ngi xew lundi bu set di mardi Sonko ñëw rek sonné ci porte bi ma de man boobu maa ngi hôpital Fann yore sama doom Sonko ñëw rek sone si bi bu mu ñëwee sone fekk fa sama jëkkër ak sama doom bu jigéen ak élève bu fa bu accompagner Sonko ak aji ak sama jàng xanaa kër googu xaw naa am ay nit aji mi doom ubbil Sonko ay vingt et une heures pile la Sonko dugg ci kër gi mais Sonko bu muy génn kër gi vingt deux heures la génn kër gi pour sama explication bu njëkk ba dafa defaleer parce que dama tiitoon bu mu Sonko duggee ci kër gi sama jëkkër yëkkati téléphone am mu woo ma ñaan nday xat yi ma ne ko naam mu ne ma est xam nga ne Sonko mi ngi ci kër gi ma ne ko waa nu ma waa ma coupé ko ba léegi sax tontu ma ko pour yàkkamtee jot aji ma coupé ko woo parce que dix minutes mënu ma jot aji mu nekk en communication ma ne waa aji lu mën a dugalee di wuyu téléphone nii ma sonn si pour occasion jot ko mën a xaaral ma woote samay annonce parce que élève bu bees boobu ma ngi fay ñëw bees numéro am xamatuma sax lu ma ci enregistré ma woote samay annonce jot élève bu bees bi ma ne ko ana Ousmane Sonko mu mu mi ngi ci biir cabine bi moom sax la nee dafa yàkkamti mais aji man suruq ba di wuyu téléphone sama xel mi ñaaw ma ne ko defal tout xamal ma li aji di wax demal suruq ba nga déglu ko ndànk mu dem suruk ba taxaw ci ginnaaw dégg aji naan sonko de dugg na ci kër gi mais dootu ko defati man ngeen a départ ngeen ñëw bala ngeen a yegg fekk ñu pare. Dakar matin. xale bu jigéen bi tim def erreur parce que moom comme que wax naa ko ne ko xoolal ma avant ma koy boole sonko mi dugg def ma war na wax lu mu dégg mais waxuma lu dégg de parce que daf ne su paree. dina ma expliquer lu xew parce que su ma waxoon lu mu dégg jour boobu noonu aji du laal sonko te jour boobu noonu sonko dinaa ko wax na ko jëlal sa produit nga dem ñibbi mais xale bu jigéen bi expliquer lu ma loolu moom dégg na loolu mais expliquer lu ma ko léegi bu ko defee ma woote waat nag maman mënu ma naam ma ne ko gaawal nga xool aji bu fekkee parle wuyu téléphone loo dégg mënu ma après dinaa la expliquer le temps final ma ne ko wax ma loo dégg ma bàyyi rek suñu paree ma expliquer la ma ko dem leen ngeen def ko 4 mai comme que moom ginnaawam rek lay maase du fi yàgg ma waaw ñu dem dugg def ko massage 4 mai tonifiant ba massage bi pare aji wax maman ne ko may ma maman moom génn parce que moom pare na te moom programme wu dara mu génn toog. bu mu génnee toog aji toog si kanam mu génn moom bu mu génnee ñëw fekk sama jëkkër bi si biir néeg bi mu toog mu yëkkati cinquante mille jox ko sama jëkkër bi sama kër massage quatre mai cinquante mille la sama jëkkër bi jot xaalis bi aji dem ubbi frigo bi génnee lekkam yi nga xam ne résidence Mamour la doon jógee temps yooyu ba dama doon koy kaañoo na ko résidence Mamour sa lekk fa lay jógee ku la koy indil yow de aji ponkal nga mu ree bu mu ubbee frigo ba mamaat moom mi ngi topp action ngir lu ma ko waxoon ne ko fexeel ba jox ma information si aji lu mu wuyu téléphone maman fekk aji mu nekk ci kër gi yëpp téléphone dafa amul problème mu écoute iPhone la yoroon six plus la ay la aji yoroon mais dafa amul problème mu écoute aji suy wuyu téléphone si biir nit musu koo def day daw wuyu wuyu sa kaw parce que téléphone su ko deful mais libre du xam lu waa wax du xam ku muy waxal téléphone lu muy wax léegi aji taxaw ci buntu frigo mama ñëw taxaw aji am ku ko woo téléphone ne ko ndax pare nga mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ko est-ce que li la wax si moom nga trouvé ko trouvé nga ko mama nag oui ou non xaaru ko rek mama ne ay aji añu looy programme aji lan nga la nar aji yëkkati dix mille franc jox ko maman maman ba duul ko de ne ko yow kanaa dangaa bëgg a liggéey sonko pour mu takk mu ne ko bàyyi mu seet aji tegaat téléphone ba ubbiwaat cabine ba sonko pare solire mu génnee ko mu dem bu mu ko génnewee mu dem fekk avant sonk di ñëw si suba gi aji xëy na suba teel dem seen kër bu mu demee mu ne yaayam dakaa yóbbu hôpital parce que yaayam dafa gis kanamam di changé mu yóbbu ko hôpital mu def test de grossesse yaayam ne ko dangaa ëmb yaayam jël test de grossesse bi ne ko dama koy dénk sa papa laa koy yóbbu aji wax ma loolu ma ne ko indil ma carton bi ma xam ma am preuve su yaay amee preuve par carton boobu yóbbu naa ko brigade de recherche mooy ci suba gi affaire Ousmane Sonko bi si guddi gi la xew si suba gi aji déclare na ëmb si biir kër gi ba ñëpp yërëm ko muy ñëpp di maanaam sama jànk bi sax daloon jooy ngir yërëm ko ak maman bi nga xam ne moo nekkoon ci kër ngir yërëm ko jamono yu Sonko demee nag ba pare aji déclaré waat ne moom yaayam daf ne ko na dem kër ga parce que day dindi ëmb bi moo ko sama jëkkër sama jëkkër na ko ana Sonko dem na mu ne ko waaw mu ne ko comme que nga ne yow da ngay dem seen kër sa yaay dindi ëmb bi woo Ndeye Khady ba pare. aji yëkkati téléphone mu woo ma. Dakar Matin. ne ma temps final final la may wax man de lu mu lay wax si suba sama yaay nee na damay dem kër ga dindi ji ko ay ne ko ay aji ragalal yàlla mu ne ma damay dem kër ga dindi ji ko ma ne ko yow instant bii 23 jot na. parce que tijjil na Sonko lu yàgg Sonko mi ngi génn vingt deux heures vingt trois heures jot na aji nekk ci biir kër gi dugg a génn dugg a génn di wàcc di wuyu téléphone si kaw terrasse bi di dugg ak a génn kanaa kuñ yëpp doo ko tal kanaa kuñ velo doo nekk ci kër gi lekk ba suur naan ba màndi ah génnee sa saak jël ay yëre ay vaccin mu ne couture ba muy liggéeyee ñoo ko ko jox kat mu may sama jëkkër ñaari vaccin ak benn cuub na ko jox naa ko sa doom bi xanaa kuñ bayoo doo tal loolu jour boobu ma ne ko aju fooy génn vingt trois heures bii mu ne ma dafa sama yaay dafa xam benn moto jakarta buy liggéeyee seeka caaf moo may jël ne ko seeka caaf moom seen moto yi dañoo am autorisation pour génn mu ne waa am na lees a passé xaw ma lu mu ko expliqué noonu ma ko waa baax na boo demee daal lu si munta am nag ma woo mais tuddul ma kenn de tuddul ma ay sonkaat tuddul ma yenn moom si biir boppam la wax mu dellu génnaat foofu dewaat sama jëkkër gi ne man sax de ëmb bi du ma ko dégg du ma ko dindi parce que dama yàgg a rêve pour am doom ma ma coupé si aji woo sama jëkkër ji ma ne ko aji am na lu muy mais def leen tout bu mu leen gën a muus nee ma moto Jakarta moo koy jël si sama jëkkër bi ne loolu la wax si kër gi ma ne ko toppal ma ko yéegal ci kaw terrasse bi nga taxaw bu génnee nga génn ma dellu waat ma maam ma ne ko ana aji mun a mi ngi nii di ay bagages am mais aji de temps fi na lu muy nocc de su su demee naa la expliquer parce que mayut ma ma wax ma ne ko ah munuma waaw ma ne ko waa baax na ma ne ko léegi defal tout buy aji di génn na ma ko toppal ba xaman ma fi muy dugg nee na moto jakarta moo koy jël si maanaam waaw aji bu mu génn kër gi dafa yollee ko jël di nax nit ñi di nax nit ñi ba si neex ba mu neex ko rek ñu mu mu këf saagam di dem sama jëkkër dégg porte bi rek teg ko ci nga ñu ko jël si bu ñuul ko moo jël si aji guddi googu moto jakarta jël si wu ko de mamaam mi ngi taxaw di ko gunge oto bi taat bi ñu ngi ko féetale ci goudron bi moo tax sama jëkkër mun ta gis marque oto bi kanam bi kese moo féetee mbedd bi aji ñëw fekk ñaari góor yi taxaw mu dugg seen mu dugg ci biir oto bi yóbbu ko bu mu ko yóbboo si guddi mars yi nga xam ne moom la sonk ñëw ci kër gi bët set di mercredi ay 11 heures aji woo ma téléphone ma ne ko yow kaa ñibbi see goo man de foofu laay añee tey sax ma ne ko ah mënuma waa bu may woo téléphone mi ngi biir police yóbbu na plantem te xaw ma ma waxtaan ak moom ba mu coupé bu mu coupé rek si brigade recherche woo ma téléphone ne man Ndeye Khady Ndiaye ma waaw munuma yow yaay liggéeyoo ak Adji Sarr ma ne ko maa ngi koy liggéeyloo sama kër suite beauté munuma est ce que mën ngaa wuyu si fii ma ne ko dama yor doom.